président conseil départemental asalaamaaleykum yéen yaru xarala bi suñu mbokku presse bi ñu ngi jéggalu ci yéex tàmbali bi di leen balu ax li sabab ndaje bi nag mooy xam nañu ni ci ay bis yee ñu génn ay maire ak président de conseil départemental dañu taxawal kuréel goo xam ni dañu bëgg kuréel googu nekk jumtukaay goo nga xam ni dana fësal dëgëral taxawaayu gox-goxaat yi ak conseil départemental xàll yoon wu yees ba nga xam ni askan wi dina ci gis boppam ndax njëriñu askan wi dongul kuréel googu ñu tudde ko réel bi ñu ko sosee ba noppi ñun ci suñu biir ñu gis xarañteef jàmbaar ak xalaat bu yees bu dëppoog suñu gis-gis ñu tànn jënn jëm muy maire Ziguinchor di Ousmane Sonko def ko njiitu réew ñu gis ni nag boobaak léegi laata ñu taxawal reer mais gën naa mbir bi ñu taxawalee réel ñu koy pamti pamte du ko tuumaal du ko jiiñ ay mbir yoo xam ni dara dëppoowu ci ak dëgg loolu nga xam ni président wu réel mi ngi koy jànkonteel ñun waa réel ñu ngi koy yëg bu baax askanu Sénégal ñu ngi koy gis yi ci biir réew mi ak bitim réew loolu nag dañu ni dëppawul ak yoon dëppawul ak lu xel mën na nangu na dakk ndax nañoo jël njiit tànn ko mu jiite suñu kuréel nguur gi nga xam ni moo fi nekk di sos ay mbir di indi ay pexe pour jàkkal ko wala tilimal ko président wu réel di Ousmane Sonko lii yàlla def ci moom yàlla moom ci moom la ko def mu nekk njiit bu yaatu njiit bu tëdd njaaxanaay njiit bu boole lépp li nga xam ni mooy réel te ma wax ni léegi moo ëmb mboole maire ak président conseil départemental yi nekk ci réew mi loolu nag li ci nguur gi di jubli lenn rek la mooy faagaagal ko ba tee koo bokk ci élection yi nga xam ni moom la ñu dëgmal te mu war a am ci atum deux mille vingt quatre ñun waa réel nag ñu ni na dakk lépp lu ñu doon def ci pexe te nga xam ni nit ñi gis nañuy pexe saay-saay nañ ko dakkal teg ci suuf bàyyi Ousmane Sonko mu am liberté comme ma sàmba ak ma demb di dem di dikk di def ay li mu war a def waaye fas yéene bokk ci élection présidentielle yi nga xam ni moom la ñu dëgmal ci atum 2024 ñuy wax aussi nguur gi warutul jël li ñuy wax justice di ko instrumentaliser maanaam di ko digal muy dal ci ay kaw citoyen rawatina ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko di président réel justice dafa war a tëdd njaaxaanaay yemale ñëpp yemale lépp waaye warul nekk bant boo xam ne dañ koy yëkkati naan dóoral diw sàngal sutura diw bul laal diw te loolu la askan wi gis loolu lañuy ñu jàggantoon boobu ba ñu bëgg nag ci mbirum justice boobu ñu wàccoog àq ak yelleef doxal ko doxinin bu mucc ayib dëppoo ak yoon sax aussi ba ni benn président bi fi nekkoon ci Sénégal bu ñu daan dëgmal élection mu ni ubbi nañu làmb yi képp ku bëgg bëre na nga bëre daan wax sax jàkk jàngoo gi képp ku bëgg nodd na nga nodd loolu mooy soxtal mooy cëslaayu démocratie ci réew démocratie ci réew boo koy dégg mais képp ku bokk ci réew mi am nga sañ-sañu laaj baatu réew mi waaye waruñu dëgmal ay jogante rek ñuy tànn kan mooy bokk ak kan moo dul bokk loolu dëppoowul ak suñu cosaanu réew dëppoowul ak suñu aada réew dëppoowul ak démocratie dëppoowul ak xel lu xel mën na nangu loolu képp kuy doomu réew mi moo xam nga nekk ci biir réew xam nga nekk ci bitim réew te réew mi ñor la waruloo cee ànd war nga ko xeex ba tax na ñun ñi nga xam ne ñooy réel créer te dajaloo fii ci ginnaaw muy kuréelu maire ak kuréelu président conseil départemental ñu ni li ñu koy jiiñ ak li ñu koy toppee yëpp dara dëppwu ci ak yoon nañu ko teg ci suuf nañu bàyyi li koy toppee bàyyi Ousmane Sonko mu libre waajal li nga xam ni moom mooy élection présidentielle lii nag du lu bees ndax góor gi gis nañu ci doxilam saa yu élection présidentielle jubee mu seet ñoo xam ne dafa leen bëgg seppi ci mbir mi xool ñi nga xam ne ñoom la war a mën a joŋante ngir gën a mën a dëggal toogaayam ci biir réew mi te gis nañu ni ci poñ yu bari dañ cee tëlle réew mi tey jii dugg ci biiru politique mais bu doon yaram mën nga ni féppay metti ba tax na li nga xam ni moom mooy code électoral bi ñu tëgg te yàggul lool dañ cee indi xàll boo xam ni sax tëj la ci weer ci sursi rek day gàllankoor sa bokk ci élection yi loolu lañu yëg moo tax ñu ne nañu arrêté lépp luñ koy toppee ndax loolu mënu ci ànd réel nag munta nangu loolu mënu koo dégg mënu cee ànd moo tax mu taxaw tem ni lii ñuy waajal lii ñuy fas yéene xam nañ ko yëg nañ ko na dakk réel mi ngi woote ci fonk ak ak yelleefu doomu aadama bu nekk cëslaayu réew mi ci loolu la sukkandiku moo tax ñu ni réel mi ngi xàll yoon moo nga xam ni di woo képp kuy sénégalais ci ñu sampal jëmmal démocratie ci réew bu Sénégal ndax way wañ naan am ci Sénégal am ka ci Afrique am ka ci àdduna boo tuddee Sénégal ñu ni réewu démocratie la réewu jàmm la réew boo xam ne day fonk ak ak yelleefu doomu aadama way woowu mi ngi bëgg a naxasaay te lenn defu ko lu dul di nga xam ne tey jii ñoom ñun ko nguur moo tax ñuy wax ni ñun waa réel ñi ngi ànd ak Ousmane Sonko di bañ ñi ngi ànd ak Ousmane Sonko ci xeex boo nga xam ni weesu na sax jëmmi Ousmane Sonko waaye képp kuy doomu Sénégal yoon dafa wàccoo ak yoon wàccoo ak yow ci dëgg ci fulla ci fayda ci yoon loolu tax Ousmane Sonko ku ko laal laal nga mbooleem ñi nga xam ni ñoom ñooy bokk réel xeex bii nag du ci wét dañ ci ànd ak moom nekk ci kanamam nekk ci ginnaawam nekk ci ndeyjooram nekk ci càmmooñam ndax Ousmane sonk mooy ñun ñun ñooy Ousmane Sonko lu ko laal rek laal nañu loolu ci tënk defe naa ni moom lañu bëggoon indi xibaar pour xamal nit ñi boroom xam-xam yi nee na fitna mi ngi nelaw ku ko yee rek yaa indi sabab bu ñu bëggee réew mi nekk ci dal ndongo daara nekk ci dal dem di jàng di wàcc ñi liggéey nekk ci dal dem di liggéey di wàcc ñi jaamu yàlla am jàmm joo xam ne sax na daañ ci mën jaamu yàlla ñi ngi artu tey woo kilifa yi lañu war a def xam nañ ko ñu def ko tey artu nguur gi ni nag lu ëpp tuur lii ñu bëgg di def duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba nañu bàyyi li nga xam ni yëkkati nañ ko di ko teg ci nga xam ne mooy suñu kilifa di suñu njut di maire Ziguinchor di Ousmane Sonko lii moo doon xibaar yi nga xam ni bëggoon nañ leen ko baaxee ci jataay bi pour wax nii rek taxaw nañu tem ngir jàmmaarloo ak ñi nga xam ni ñooy saay-saay yi indi ay pexe yoo xam ni dañu bëgg gàllankoor bokk Ousmane Sonko ci jogante yi lii ci tënk moom la ñuy indi loon te kaddu yi ma yëkkati nag du samay kàddu kàddu assemblée réelle bi la ñun ñëpp ñoo ci mànkoo àndu ci moo waral suñu dajaloo bi moo waral suñu toogaay bi man may wax waaye ñëpp ñooy wax kàddu gi benn la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu